se Siriga Baye Fall walum marigot bi muy euh, dex bi mhm. ñepp di ci wax gis nañ ci à travers réseaux sociaux kum xam ak ku xamul ñepp ngi wax mhm. té yeen ngeen xam né yeen ko jégué waxol leen nan nga gisé projet ah projet bi mom xam nga ñun ñaari kër lañ fi am mhm. yu jakarlo yépp ndox mi nangu nako bañu fi dëkk nak melu won ni ku xamone ni ni lay mel do jënd ñaari kër yu jakarlo ndax fi montagne montagne la won auto sax bu fi dugg day ngirew mais ñu dem ba nga miir bi ñëw na depuis 2005 nag ñu ngi ci métit bi depuis cinq ñu ngi ci inondation bi ñun chaque nawet suñu kër day fees dell est-ce que comprendre nga suñu famille yëpp tasaaroo na ñii dañu luyee fii ñii luyee fii ndox mi nangu na suñu ñaari kër kon xam naa ñun ñoo gën a am lu ñu metti ndox bi muy nangu suñu ñaari kër ñun ñoo gën a am lu ñu xari mais nag kon ñun mënuñu xeex ak nguur bu ñuy defar nag nañu defar te yàlla tax bu fekkee ne tamit mën nañu ko defaral ñu mo ñu li ñu gënal ñu mëna défar ñu mëna tamit toj suñu kër défar mais bu fekké né tamit ñu lett rek ba ñu firi ñu xam nga mom euh, ba do la mënu xex ak nguur te nguur lu mu décidé rek ñun ci ginnawam lañu top mais nak sonu nañu trop deug ya légui projet bi yeen la ngeen ci xaar comme walam ci walum kër fa sang da nga ñiko wax wax walum kër ba suñu kër ndox bi jël nako la ngeen ci xaar ñu dédommager leen wala ñu défar leen dakh bi ba xam ne ndox bi du dugg ci kër la ngeen xaar ci projet ñoom buñu comme si ñu nga ñoom ñooy xool li leen arrangé. ok moo leen arrangé wala yow lan moo la arrangé ñu dédommagé la wala ñu defar dex bi defar seen i kër. ñu defar dex bi. waaw ñu bu ñu soñoon. Mhm. ñu defaral ñu dex bi. Mhm. bu ñu defar dindil ñu miir bi nag. Ah, waaye wax te waxoo miir bi. lu ñu dal yëpp miir bi la. daa mel da leen sonal. barki Serigne Babacar daf ñu sonal ndax ñun 2005 ñun ndox sonalu ñu woon ñu chaque année. suñu euh, réseaux sociaux day fees della laaj ko moo Modou mi toog day fees dell ba ñu ñëpp dañuy yëg ci kaw te miir bi moo ñu ko teg ñun xamuñu woon coonoy ndox. est-ce que dem ngeen waxtaan ak moom wax ko coono bu mu leen. mais mënuluñ ko dara ñaata yoon la miir bi daanu daanu na quatre fois miir bi daanu na ba daanu ci kaw nit. taxul taxul mu am pouvoir sampaat ndox bi. est-ce que dem ngeen si yoon. ah mais yo kay nit booy tabax ba ba nit ci kay am yoon am na ci amu ci yoon copain yoon kay am na ci droit daanu na ci kaw nit daanu na ñetti yoon cinq fois mu tabaxaat ko benn bi mu daanu ci kaw nit ah yoon kay fu dee yoon kay miir bu nit rey kay. la ngay xaar si autorité yi si dex bi ak si miir bi nga xam sànq ba tey yéen ko wax sonal na leen trop. waaw moo ñu sonal nag sama sama yaay ji toog xam nga moom la njëkk a wax ne la miir bi ñun bañ fi dëkkee miir bi amu fi woon yoon fi yoon la woon dañ daan dem comprendre nga. Mm. léegi nag ñu ngi ñaan ñoo nga xam ne ñoom ñoom ñooy borom réew ñoom ñoo bu ñuy ñaan ñoom la ñuy ñaan ndax ñoo yore doole ji ñu dimbali ñu defaral ñu suñu lii bii ndox bi bu utal ko yoon wax ki ndox bi mu dem ñu tabaxaat suñuy kër te nit foo mën a fi nga miin rek nga bëgg a dëkk du dëgg ñun ñëpp bu ñu yëkkatee sama yaay yi toogee bu ñu leen yëkkatee dañuy demaat feneen rek tasaaroo la ñuy def te loolu ngeen di bañ waaw te tasaar suñ sañoon daal nañu defaral suñu ndox bi mhm. kuy toj defaraat mais bi ngeen déggee projet bi ñu koy wax ñu ne dañuy defar dex bi day am mbégte dama kontaan dama ne alhamdulilah yàlla ñu defaral dex gi bàyyi ñu ñu defar xam nga ñun ñaari kër la ñu am mu ngi fii ñaari réseaux sociaux mhm. moom la ñu am ñu jàkkaarloo léegi bu ñu defaroon yoon bi rek ñu toj daaneel tabax nan nga gisee autorité yi fi nekk si commune bi. jàppale wu ñu daal fii daal man man li ma gis gisuma fii daal benn ku fi nekk daal sa bopp nga fi nekkal. Hmm? dëgg yàlla ko moom ku fi nekk sa bopp nga fi nekkal. sonn ngeen yoon waat waaw dañu sonn. te fii ku ne de autorité jàppale nañu rek ñun ñu fi toog rek hmm. nañ wax te yàlla tax ndax chaque jour suñu kër yi day fees dell ak ndox du ñu gis kenn benn autorité mu ñëw jàppale ñu. Hmm. kon ñi fi ne ñëpp xam nañu ne kenn jàppale wuñu. metti na waaw kenn jàppale wuñu. ñu ngi ñoo yor suñu cëggalu guy ñooy defar mais nag foos yi bari na. waaw foos da ngay toxaw fii ay camion di ñëw sotti fi ay foos. Hmm. te fii ay nit dëkk fi ñu yor ay xale. mbalit bi mbalit bi en plus ñu yor ay xale. comprendre nga. Hmm. dañu yor ay xale yoo xam ne air bi ñuy noyyi sax hmm. baaxul. léegi lii dootul ndoxu dex ay ndoxu foos la. comprendre nga. bu ma fenee sama yaay yaay yi ngi toog dootul ndoxu dox ay ndoxu foos la. moo bu takk sax ne xet gi doo toog sa buntu kër. loolu la deme metti na ku dee da ngay ku dee ak sa bàmmeel doon ay jigéenam di ànd ak moom bu ma fenee ñaari maire yi mën nañ ma seede fu ñu ànd nañ fak sam papa pour fu ñu ko waxee sam papa dem topp leen mhm. nekk mag di ànd ak ay jigéenam yi mhm. fu ñu dañuy defa ndox ñu dem lépp ay waxi furus mhm. kenn daal ku ñëw da ngay wax ba dem rek yaakaar du am ministre bu yor wàllum environnement dëkk fii si commune bi ñu ñëw wax wax projet bi yaakaar du xaw a am wala ah waaw moom ñun moom loolu ñu arrangé ñun bu ñu ñëwee defaral ñu fii fii ku ko defar ñun ko ko defaral est-ce que comprendre nga tey bu ñu ñëwoon ñu que ñu suñu lii kon ku nekk boo bëggee defar immeuble sa kër da nga koy defar mais fi mu nekk ñun ñu fi de kenn ñemewul tabax kenn du benn nit bu ñemee tabax fii kër Mbaye Fall ndax xamoo fi ngay taxaw la fan la jërëjëf kàddu gu mujj bi lan la waaw ngi leen di gërëm di la sant acte bi nga def pour ñu ñu jooy li ñu naqari ñi ngi ñaan yàlla nag li gën rek yàlla na ko def Blay Ndiaye dëkk fii kër Mbaye Fall ban at nga fi dëkk ñu ngi fi am terrain depuis quatre vingt bin fi jëndee terrain bi. terrain bi jour boobu bin ngi jëndee terrain bi bay ñibbi suñu oto fii lañ ko jaarale fii ñuy wax dex. kon xam nga ne boobu nekkul woon dex. mais amoon na nag yoonu canal si tali bi nii. saa bu ñu daan tabax bu ñu moolee ba pare bu ñuy ñëw. fii la ñuy jaar ñëw ranger la suñuy mool. defar suñu fondement defar suñu lépp ba tabax ba dëkk. tey lépp loo xamante ni tey jii nii moom mooy jariñ ñi nga xam ñu ngi dëkk fii Kër bay Fall ñun ñi dëkkee fii ci dex gi. su ko maire yéegee ak su ko maire yéegul lépp ñun ñu ngi siy jéem suñu kéemtalaay kàttan mhm. di def la tout ba nga xamante ni fii ñu dëkk nii day nekk dëkkuwaay bu sell parce que tamit ay doomu aadama lan ay nit lan yoo xamante ni xam nañ ni àdduna di doxee te bëgg nañ lu baax bëgg nañ lu set mhm. waaye nag bu fekkee da ngay defar ña la ña nekk sa kaw di yàq su boobaa li ngay defar du feeñ mhm. te lii nii yàq bu bari da nekk boo xamante ni ña ca kaw ñoom ñoo koy yàq muy li ko dale ci comme maire bi ñuy wax ak ministre bi ñuy wax ak état yeeg ñëpp yëg nañ ko parce que li ma ci mën a wax mooy man dama ci yàgg am benn xalaat boo xamante nii mooy dex gi depuis ma gis ko mu màgg dex gi man nañ koo defar te du yàqal kenn dara defar biñ koy defar dex gi mënoon nañ koo defar sax ñoom gañewaat si xaalis parce que mën nañ koo defar defar ko noo xam dañ koy fàtt ba teg ci ay canal teg ci ay cantine ak lépp loolu noonu pour li lay won problème nii la loolu lu mën a ne seen canal dafa nekkoon canal bu ouvert mais léegi dañ ko tëj teg fa ay cantine mu am leneen loo xamante ni mu ngi koy apporter maire bi di ko apporter dëkk bi te jotewul ak dara population bi dëkk bi dëkk Tëngéej kon pourquoi pas loolu ñun mënuñu ko def fii nii ñoom bu ne mënuñu koo def c'est parce que seen waxi politique la loo xamante ni ñoom la arrangé am na leneen lu nekk si ginnaaw luñ bëgg liñ bëgg nag mooy ñun ñu jógee fii ñoom ñu ñëw dëkk fi yàlla def na sutura ba ñun ñoo leen fi jiitu ñoom comme ñoom ñu ngi si géej gi si seen mbeex mi noonu ñoom ñoom waa maire ki yor maire yi mbaaw ak ki yor ministre bi nga xam ne moo yor bi léegi nii parce que bo nekké ministre environnement nga dëkk mbaw juddo mbaw yaro mbaw magge fi ñom xam nañ ne ndox mi tak fi ni ba tax mu salté ni xam nañ ne du wa Kër mbay Fall dé mais wa mbaw la parce que ñom ñoy tej géej ni ndox mi du dug mais si wàllum tej géej bi. waaw ba ñu ba ñu sukkandikoo si discours euh, ministre bi. dem pompage manam ci ndox bi dina mëna dem ci géej bi. mais du mëna déllu wat ci askan bi. waaw loolu la wax. waa xam nga xam nga xam nga ñun ay lébu lañ mhm. xam nañ lan mooy affaire de géej kon suñu waxee lépp luy dex xam na ni ci géej la mën a jëm mhm. fépp foo dem ci àdduna mhm. ndox moo xamante ni dafay déborder rek géej mooy yoonam moom mooy place am kon suñu suñu déclaré beede aan bi ñun beede aan bi ban ko waxee ba léegi Kër Mbaye Fall da cee gis boppam demal yarax boo demee ci fii li tax ñu wax beede aan bi lépp def nañ ko tali karo duggal biir mbaaw lépp def nañ ko tali karo léegi pourquoi pa léegi Kër Mbay Fall ñi dend ak dex gi tali karo bi seen yoon nekku ci amuñu ci wàll bokkuñu si dañ leen di seetaan ni yàgguta màgg bu màggee tey dañ koy wax grâce à Ablaye Wade la parce que ñun dañ fi daan def personnel di daw di daw nga xamante ne moom la ñuy wax cité pénitentiaire den daan jëli daan jëli pénitentiaire yi di leen yóbbu ñuy ñuy garde ñu def personnel boo fa daan dem day mel ni kees nga jëm ndox sooy kon su màggee tey grâce ab Ablaye Wade la mais tey loolu bu fekkente ne màgg na dem ba ndox yooyu yëpp di déborder di ñëw fii ñun bañu ñu ndox mi ñëw de mais li laay war a suule bala ngay bala ngay dimbali ki nga xamante ni moom coonaam bariwul dangay dimbali ñi nga xamante ni bu ñëwee fa lay taaju fa lay nekk ñoom ñoo koy dund ñoo koy vivre ñooñu ngay dimbali ba pare man loolu laa jàpp mm-hmm. waaw. léegi lan mooy kàddu gu mujj ak la ngeen xaar si autorité yi. man moom sama sama kàddu mujj ci loolu moom mooy fii Sénégal fii jamono ji ñu toll ni man gëwuma benn autorité man dama part personnellement. ndax cap laa nekkoon ba ma fa nekk ay autorité yu bari woo nan ma pour liggéey ak man ñu jox ma seeni secrétaire ma leen di wax ñaan noono bala ngay jaar si diw da ngay wax ak man ba pare man leen noono man sama idée ak sama ak sama xalaat du ma ko wax secrétaire muy dem di ko def idée boppam seen njiit laay moom ngeen may mën a jox ma wax ak moom li ma bëgg wax ak moom suñ si d'accord ma jàppale ko su ma si gisul lu ma xam su ëllëgee ma mën a taxaw wax ko ni ko lii laan waxante wante sàmmoo ko woon mais du jël sama sama dara sama idée boobu ñun xam na ni ni affaire yi demee da ngay gis koo xam dañ koy teg ci kaw fekk na xamul dara dafa am ñeneen ñu nekk ci suuf ñoo xam ñooy liggéey lépp mais moom turam moom mooy feeñ ñun kenn duñu mbubawoo man du xalaatuma loolu ci àdduna moo tax du ma ànd ak benn politicien boo xam ne pare woo pour si man li ma ne si